leen bu baax a baax yéen ñi nga xamante ne yéen ñuy topp ci différentes plateformes yi nga xamante ne moom lañ nekkal ki ñu toogal nag euh, nekk suñu papa suñu tonton suñu grand doonul koo xamante ne dañu koy présenté ci milieu bu ñu nekk ndax moom moo ci suñu njiit ñu di ko jaajëfal bu baax pour nuyu naa la waa aare ñoo ngi lay jaar doomu nday duudu doomu nday may ga ah tey moom mafia duudu say say laa fi gis ah, ndeysaan di euh, sant rek tamit di ñaan yàlla tey li ñu fi dajale di ngénte sama rakk tuudu doom ji mu tuddee rakkam ju jigéen ñu bokk turandoo ci seen yaay di ñaan yàlla yàlla na yàlla barkeel leen di tàmbalee rek fa ma naan tàmbalee mooy sant yàlla di julli ci al yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaanal suñu wajur jigéen fu mu tëdd yàlla fu yërmande suñu borom fekk moom ak kum fa fekk ak kopp fekk di ñaanal yàlla suñu wajur góor ak suñu tànt yàlla bàyyi leen fi waaye di feddali rek sunu njëbbal ak sunu yaakaar ci sunu buntu Cheikhul Khadim Maulana Cheikh Ibrahim Mbacké ibn Serigne Mbacké Madina di ko ñaanal sama borom defal ko ridan barakatan wa rahmatan fi barakat Cheikhul Khadim Cheikh Cheikh Madina mi nga xam ne tey moo toog jotaay borom Madina ñu ñaan yàlla bàyyi ko fi Cheikh Amadou Mokhtar mi nga xam ne tey moo toog toogaay Cheikh Mamadou Moustapha Karim yàlla dimbali ko yàlla jàppale ko te yàlla bàyyi ko fi waaye nag ziar al Khalifa Cheikh Mamadou Mountakha ci yërmande ji ci bëgg-bëgg gi ci lislaam ci bëgg a ñoŋal yoon wi bëgg a ñoŋal diine bëgg a ñoŋal lislaam dama koy wax ni que la es le xalif de l' espoir Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñu di ko ñaanal di ñaanal xulafaat ak surafaat yi nekk ci réew mi yëpp ñaan yàlla yàlla def ci mi jàmm di la nuyu bu baax Ali sama waa ji ñu kontaanee la bu baax a baax tey li ñu dajale fii mooy sunu frère mu doon yow tamit sarak di àndandoo yow di liggéey soo amoon yenn kàddu yoo xamante ne da nga ñu koy wax ñun ay xaritam ci Doudou wala ay soppeem yi nga xam ñu ngi koy seetaan nan la. xam nga Doudou du sama rakk Doudou sama doom la Doudou sama cër la parce que sama doomi nijaay la. baayam ak suma yaay ñoo bokk ndey ak baay mooy sànq li ma wax tey ñun bu ñu defee ci Doudou defaguñu un pour cent ci li baayam def ci ñun euh, allez imaginer nga nekk ci benn famille nekk fa benn góor surtout les famille griot yi famille géwél yi sa ñëpp day jigéen léegi nga bëgg a yar say jarbaat yar say doom yombul seen papa mu ngi génn àdduna en quatre-vingt-dix-sept moom mu ne fii papa yi uuf toute une famille boo gee sànq bi wax suma yaay mu jooy parce que su yaay dafa nekkoon benn benn benn benn combattante quoi combattante bu jigéen yàlla boole leen tey bu duudu màggee tey ànd ak man dafa def li war parce que man la war a àndal man moom laa war a àndal yàlla def na am naa rek yu ma bokkal ndey ak baay mais cër bi ma jox mbindeef joxuma ko dama koy wax kooyee fort man li may baax baax dama nerveux ba dama koy yëg mook jabaram ji engagé naa leen fi bés tëggal leen maf boo xam ne bi ma duggee sama dama rus parce que lu nekkoon sama fii la foog ma jàkkaarloo ak ñoom wax leen ko doodu léeg-léeg dama koy sax saaga ci jugal nga defi lii ñoom ñëpp ay ñoom waagaandi yi moom mi suma rakk jabar boog sama jabar bokk na ak baay léeg mu wax ma ne ko li nga wax nangam li ma wax mooy am te li ma wax mooy am loolu nag cër la donc fi mu teg tànkam dudu footballeur la woon il est grand joueur mais dama xool li baayam jur xam ne moo cëpp yërmande ma ñëw fii sama sama rakk yaay bu mu bokkal ndey ak baay ne ma sawaay duulu mii dafa yërëm baayam jël ko nga former ko ànd ak moom ma dem kër ge sama sœur bu ma bokkal nawet dama ko topp ci man mel dañ ko yëgu ne ma yow Doudou mii deful dara doo ñëw ma indi ko ci man directement le su ma ko defalee loolu day yomb ci moom te day neex te man bëgguma lu neex ak lu yomb dama dem xaas TV seeti Cheikh Diop na ko dama su mel ne frère bu ma bëgg nga ko noonu laa ko mooy bu ko yërëm ñëw ci moom ne ko am na fooy xëy ñu ànd ma déposé ko xaas TV dem sama mook Cheikh Diop dañaa ànd tournée Père Diop bi duul di ko gis ni ma ne Cheikh Diop bu mu ci mos na dox ñibbisi ba yàlla def Cheikh Diop jógee xaas TV doodu ñëw rejoindre bañ ma rejoindre dama ne ko vingt cinq mille francs nga mën a am pour un premier temps waagaan na ma tuuti naan de waaw ah, ne ko non non mais soixante quinze millions yi dama daan gis ni que dafa dafa daf ci amoon fierte mooy saa yu ku mësa waa ngeen mësa jox vingt cinq mille su ma doon di romb fii papaam ne ma ah saa yi saa yi tey jox na ma ñaari junni de su bi ma ko njëkkee jox su ko lekkoon dootuma ko jox yàlla seere na ko mais dama ko jox pour xam naka lay doxale ma naa kon kii ma dugg ci kër gi bàjjee na mi ku ci nekk na ah du de may na ma mille francs rakkam yi ku ci nekk ah du damay nañu cinq cent ma xam ne il a partage dama xëy rek <laughs> waa Gade ma yokkal naa ko salaire am man maa ah, waxee yow loolu yow mbiri jàmbur kay boo ko xëyee balaa ngay yokk mu ne eh, Fall Fall yokkal naa ko de vraiment lii lu ma koy jox parce que ndax may wax lii leeral def ci baax parce moom i des fois dafay féete ci benn position boo xam ni euh, dañuy jàpp ni dama ko jël teg ko ci seen kaw. fekk na li muy doxal à quatre-vingt-dix-neuf pour cent man maa koy wax mais ci duur dafa fipp quoi na ma faal duudu foog ñu yokkal ko ma xëy mu yokkal duudu cinquante mille ma xëyati salaire de mu ne ma jox naa ko cent quinze mille noonu la yokk waaw boobu te vraiment di ku di ku di ku jàmbaar donc euh, fi mu teg tànkam nee naa ko ci réew mi fii laa juddoo bu ma gisee ku may ñappal ñëpp sax ay ree daf may jàpp ak may ak am ay borom yi samay mbokk bu ñu ma dégg sax dinañu xam ni que ay borom yi mbokk laa am naa ku nekk sama biiru mbokk ci dëkk bii Grand gii fii laa juddoo ci kër gii fii laa màggee samay maam sorewuñu mbaaw gii laa dëkk ak jandeer gii doomi dëkk bi laa donc euh, du dama koy ñaanal yàlla duuru dama am ci moom ñeewante ak yërmande duudu yaayam bi muy gaañu def ko boot ci ginnaaw wallahi azim loolu du ma ko fàtte fii la ñu toog vers les coups de dix ci suba fii mu toog fii di fóot ñu ñu taxaw fii di séeri mu ngi boot duudu kolle barki xaadimu rasulullah mu jëkki jékki ne wéy ñu ñëpp daw mën a këlëb ñu tekki duudu ci ginnaaw duudu di booy bu bari miracle ñu tekki yaay ji du nekk xale ñu dem duudu am six mois di foo fi jëtt bi suñu maam bu jigéen daan jaay gaz yi ñuy gazé ci bopp du duudu ñëw tiim soo gaz rek jël ci la amee problème am bi ne këlëb sama yaay këf daw yóbbu hôpital maanaam nit ku extraordinaire la duudu man loolu xam naa ko ci moom par intelligence bi ci moom macha allah dafa dafa dafa dafa doy waar mooy lépp lu mu teg bëtam boo ko ak boo yàlla dana ko dimbali dana ko dana ko mën donc ñu di ko ñaan mu góorlu nit dafay góor góorlu parce que nit dafay am jomb jomb man jibi ngom sama dana wax naan dama am jomb jomb man dama am jomb jomb lépp lu ma sama ndaw la di xoole di ma ca xeebee gin ñaa ko ci Cheikh Modou Sa Mbacké doo ko gis mooy ñett yi daal mu ngi ci man borom juddu laa doomi géwél laa jurit laa murit laa hmm. loolu nag lu ma gëm la du lu may wax nii rek mais lu may incarner la chaque jour jëm a jëm. d'accord am na solo buur suñu toogee ak yow ba jóg te laaj ñu la ci làmb ñi ñu seetaan dinañu mere kay ngeen lii moom xamoon naa ne <laughs> mas dinañu mere tuuti waaw jubluwu leen ci wax dëgg yàlla seen seen moom yeggul ci jël ay témoignage ci duulu kese kese kese yeggul foofu waaw ab Salim mais mais loolu mënul ñàkk. parce que buñ toogee ba jóg. ana allo Sénégal mu ne ñuy seetaan dañuy Fallou. Fallou ngi fi ah, Lamine mi ngi fi Lamine ndeysaan. voilà hmm. euh, Bour coow li ñu koy dooree rek. balaataa ñuy ñëw ci komba mooy CNG bi nga xamante ni ministre bi. dafa waroon hmm. changer njiit li waxoon na na ñu dem kuréel yi ñu tànn ñett ba ñu leen doy ñu andi ko moom mu tànn. Hmm. mais boobu ak léegi. gisaguñ liste wala wala lenn loo xam xamante muy communiquer daf ko génnee wax ni diw mii la ñu tabb président CNG ba léegi lan. xam nga sama déclaration defe naa ñëpp seetaan nañ ko. Mhm. booy passé fii ombal nañ ma xollil nañ ma saaga nañ may li ma wax muy dëgg te fekk mu ngi dem dañuy gis ki la ma waxoon muy dëgg dama ni le ministre avec l'opportunité def li gën a yomb mooy nommé ki ku ko doy. Mhm. du la du dama ni ministre dafa cuune déedéet waxuma loolu. milieu làmb moo métti. xam ministre bi li mu jublu woon rek mooy ñu nekk benn. Mhm. bokk ndey bokk baay. ministre bi avant moo tànn gaa ngi saagante avant moo avant mu leen di wax ni que dem leen ngeen nangam ñu ngi saagante. lu bari feeñaat ci làmb problème yi. ñu ngi dem ay conférence de presse promoteurs yi ànd ak mbër yi mbër yi ànd ak promoteurs yee yombalul <laughs> liggéeyu. ministre bi ci boppam dama ko ni dañ la jox ay pouvoir de nommer le poste du président du CNG n'est pas un poste électif c'est un poste nominatif moom moo yor pouvoir yooyu nitu làmb la nitu sport la elle a cheminé ak Matar Ba doomi mbër la paraît ci maanaam ci espace su làmb ci la juddoo ci la màggee donc tabb njiitu CNG war a ko jafe mais bu maintenir lu fulu rek mooy dafay gën a maintenir les conflits comme xam nga leen ma bëgg wax li CNG di daw xam na ko ni muy doxee xam na ko li ci baaxul xam na ko li ci baax xam na ko xam na l'équipe qu'il nous faut c'est pas l'homme qu'il nous faut qui est très important gars bàyyiwuñ xel lool ñu ngi wax ay nit kaay mbay Malick Ngom Mbaye Fall nangam nangam nangam mais waxaguñu une équipe man dégguma ñu wax une équipe te le CNG une équipe moo ko war a gérer mooy désagréments yi dafa bari les accords yi dafa bari donc pour man dafa waroon jaar fi Maxtaar ba jaar mooy na ñëw fexe ba organiser ay assises de la lutte. Mm. déglu toutes les couches parce que bu ñu fàtt ni président CNG bii fi nekk Bira Sène ñu ngi ko fal après ay assises yu ñu defoon arène nationale le ministre Matar Ba bi ko nit ñi ne Bira Sène te pas l'homme qu'il nous faut dafa ne attends jëluma ko woon pour teg ko fi dama ko jël pour que ñu mën a organiser pour aller vers une fédération c'était ça l'objectif man maa nga fa woon finalement la gars toog fi ba def fi quatre ans bu ma juumul. donc objectif bi ba tey est-ce que dañu koy maintenir ba tey mooy aller vers une fédération wala est-ce dañu ko bàyyi wala est-ce que dañuy néganuk mais en tout cas fulu bii mu maintenir téye suspense bii du def lu dul diviser làmb à cent deux cent pour cent maintenant al équipe bu fi toog suba déglu baax li ma la wax de mm. na si ku mu tànnaat fi mu nii geraam équipe bu mu tànn dina am mbooloo mu jàkkaarloo équipe boobu lu ñu def duñ ko gis ci lu baax lu ñu wax duñ ko dégg. parce que daf ko diviser te tànn ko. te bàyyiwu ko xel noonu daf leen diviser sax te bàyyiwu ko xel moom moo diviser le monde de la lutte. c'est ça là gis nga Sénégalais li mu bëgg dégg rek lay dégg mais ñun on s'en fout des gens qui sont derrière leur clavier à insulter ou bien à dégriner yooyu déranger wuñu mais dama ni moom moo créer la division. parce que qu'elle a maintenu le suspense jaru ko woon elle devait avoir un travail benn liggéey boo xamante dañ ko doon def en amont mooy le président du CNG mandat am le 30 septembre lay jeex avant le 30 septembre war nga mën a xam qui est l'homme qu'il te faut d'accord munoo bàyyi bu mu kut ni jon boo gisee ni mu ko doxalee doxalee ko mooy kii bàyyiwul woon xeel sax làmb mooy dafa nekk dans l' obligation mooy dafa war a fal rek mais bàyyiwul woon xel sax ni làmb président man naa war na jeex ki la war a far yàlla xam na ko nekkul sax ci logique boobu. mais kon dafa am problème mu choix nii moo tax. non parce que bàyyiwul xel làmb su bàyyiwul xel làmb dana am problème mu choix su woon xel làmb man li ma gëm mooy waroon na dajale monde làmb mois avant déglu kàngam yi ci làmb mois avant dina ko permettre mu xam kan la war a fal. dañu jékki-jékki xëy génn communiqué ne fal nañu diw. ku dem tànn équipe am mais mënoo toog ba mu ni kut ni jonn mandat jeex le 30 septembre ba passé ah teg weer nga ñu dajale ñëpp ba pare ñëw ne leen leen ngeen tànn waa léegi kon kay mën nga def ay élection ndax ñoom l' mooy ñoom bu ñu tànnee lañ tànn du valable. te lamb mi continué di am. waa si mooy bu ñu tànnee yow bu ñu ñëwee yaay tànn la moo lay wóor ne ñoom ña ñu tànn. ñoom ngay tànn wala kooku ngay tànn kon kay balaa caag tànnal mu jeex. ñëpp am jàmm. communiqué bi c'est pas fiable. amul benn bataay psychologique la woon boo xam ne le camp de Malick Ngom ñoo ko doon te c'est de bonne guerre ah. le camp de Birane ñu organisé ñoom tamit def ay affaire mais dama ne c'était pas lii jar ko pour fal benn poste présidentiel bi dama jar lii mais depuis bi mu ne dem leen ngeen waxtaan ne ñaata nit nga xëy nga ñu bi xasante ak di saagante. donc boo donc loolu boolewul làmb mais nañu wax ci dëgg el xam nga wax ji dañ koy wax rek te yàlla tax mooy dafa diviser làmb loolu mooy dégg dem leen ngeen waxtaan waaye dama démb sax lañ ko waroon fal parce que le 23 démb ak tay la war a doon normalement waru ci génn d'accord mais mais mais mais ñu gis Père Bécaye moom mu dem ba dernière minute doo ko fësal candidature. waaw est-ce que du loolu xaw na ko wàññi tuuti bu doon moom teel na postuler candidat. déedéet déedéet déedéet xam nga affaire bi mooy li ma wax nekkul benn poste bu électif mooy yow mi bëgg nekk candidat da ngay bind rek dugal ministère ñu jox la accusé de réception mais candidat yi jot a coow lañ jàpp ni ñooy affaire bi aale xam nga lu mu leen dul ay élection te problème kon ñii déposé nii ko jox keneen ku dul. mën nañ ko jox keneen ku dul ñoom. ok mais dooy élection c'est un poste nominatif. mais yow ci ñi. non man moom gérer lu jëm ci làmb moom intéressé wu ma. ma hmm. man naa ne ci tuuti su baaxee ma tàccu su bonee ma taxaw ne baaxul ambay ah, jóg. moo gën a noppale. mais est-ce que amul est-ce que amul aussi tamit ay mbër yoo xamante ni ay anciens lutteurs yoo xamante ni. Euh, da nga da nga leen di déranger parce que maa ngi gis euh, sànq benn interview Khadim Ndiaye euh, mu ni am na ay mbër yoo xamante ni ñi ngi liggéey ki nga xamante ni moo ni ministre des sports. waaw loolu ay waxam la mais xam nga man buur wama chey naa ilam na na du ma wax dara loo xam ne wóoruma wala xaw ma ci salaayu man ñoom seen yooyu ñu nekk intéressé wu yàlla xam na pour copinage boobu wax ak kii wax ak kee dem wax ak kee ak kële nangam nangam pour dire vrai ça ne m'intéresse pas mooy que am naa ci daal aperçu am naa ci opinion te sama opinion dama koy wax mën na baax comme mën na bañ a baax mën na gën comme mën na bañ a gën parce que nit kese la euh, wax ma may la tur. d'accord. Hmm. Mm. ok d'accord mm. le buur fi ñu bëgg a ñëw mooy que euh, combat royal bi. Mm. gis nañu ñenn ñiy wax ni kat wala ñuy romandaat ni blessure dafa am. ci côté ci côté Siteu. non su blessé woon du entraîné. dañu wax dëgg mbër bu blessé kay <laughs> mais day dem au repos gis. mooy boos bi waaw man de xam nga man nag dama jàngul sport ñoom coach Ngom gaa yooyu ay ñoom coach Thiabang. ñoo gën a habilité pour répondre à cette question là mais Beuz mi nga xam ne daal moom am na doctorat am na maîtrise nee na c'est un lan euh, lan de bison bosse de bison xaw ma nag bosse de bison moom bison daal xamaa ne nagu àll la te bosse it xamaa ne mooy li ne fii comme bos de bison la nañ jàpp ni bosse de bison la waaye est-ce loolu mooy daan muutloo wala est-ce loolu mën na ko daan mm-hmm. wala est la forme physique de Siteu pare na pour daan yaaw saas foofu mooy wax ci en tout cas Siteu gis naa ko mu aborder combat bi ci façon boo xam ni musu ko aborder combat mooy dama wax ni Siteu diggante ak Modou Lo amul dara lu mu ciy perte Siteu bu daanee moo gañe su daanoo am na mérite su daanee am na mérite su daanoo il apprend mais Siteu amul dara lu muy perte ci Modou Lo mais gis naa ci combat bii moom ci sérénité ak fegu fegu fegu ak préparation boo xam ni même au-delà de cette combat là Siteu bu ko bu combat bu mu prépare ni yàlla mën na ko ci may ndam loolu nag lu Siteu définition adversaire bi moo tax mm-hmm. en tout cas liggéey nag xale la mënoon na sax gën a liggéey pour man temps bi mu toog États-Unis ak temps bi mu fa def jaru ko woon surtout que foron teel a ñu bis mbeex mi contact physique en tout cas daal liggéey na. mais est-ce li nga doon moytuloo Ama Baldé moytuloo ko Boy Niang ci Modou Lo. Mm-hmm. ko moytuloo surtout. ah Modou Lo day mooy Modou Lo gisaguma jëllam deux mille vingt quatre man alaaji buur alaaji sàppali maa ko wax booy baa ñu téléphone wala nga jóge fi yow jëllu Modou Lo hmm. man da xalel gisaguma ko deux mille vingt quatre gisagoo ko déedéet hmm. ah, amat li ma wax mosuma ko changé wala nga bëgg mu gën a leer Siteu bés bu daanee Modou Lo dana ma bat néew ma mënu ko daan de ndax yàlla dana tënk ko. mais buur da nga séntuwul doole ji wala bëre bi ci moom. fa gaa dañuy bëre ba tey te Modou Lo nekkatul mbër Modou Lo il y a quatre ans cinq de cela mbër la woon il s'appelait Modou Xarañ Lo maintenant Modou Lo est un professionnel Modou Lo est un athlète au vrai sens du terme bopp mbër yi booy yor yi mbër yi yor. ak xalaatu mbër yi booy yor Modou Lo yoru ko Modou Lo il a l'esprit et l'âme d'un vrai champion l'esprit et l'âme d'un guerrier l'esprit et l'âme d'un combattant est-ce que c'est un combattant c'est un mbër la Ama Baldé bi muy ñëw mbër la boo Niang bi muy ñëw mbër la xamal tax mm-hmm. ñoom ba ñu nekkee ci mbër ga ca biir géew ba Modou Lo pare na bu yàgg takku ba dëgër takk ay loxoom di contact ak di étiré wu ñoom ñu ngay xëppoo di taal ay cuuraay di sotteekoo di jam ay sondal di dóor ay nen moo tax man la ay mbër lañu ba tey. mais hmm. euh, yi ñu ci bëri dañ naan li ngay chroniquer ci Modou Lo. Hmm. maanaam xam nañ ne da koo faral de telle sorte ko booy wax ci moom maanaam du am sago ci moom. lu ci bëri naan est ce que newul Modou Lo dafa nekk sa ginnaaw di la fay ngay wax ci moom ba tax na yenn mbër yi à chaque fois bu ñu dajeeg Modou Lo Modou Lo ngay gën a favoriser ci yeneen mbër yi ndax tey dañuy gën a firndeel ne Modou Lo moo nekk sa ginnaaw moo tax ngay chronique ci moom wala danga nga xam loo xam ne nii kenn xam ko woon nga koy génn ci diggante da ngaa jàpp damay lekk weexal man ñeneen ñeen jàpp damay lekk weexal quoi c'est le vrai sens du terme quoi waaw ok xam nga ñun ñuy analyser làmb dañu amagul benn habitude mooy amaguñu habitude de wax li nga gis ak li nga gëm même si sa dérange bu dee ci football on nous le permet Gomis attaqué na fi Sadio Mané attaqué na fi Aliou mais xam nga dox parce que football la mais ñun làmb rek ñoo am problème nga analyser ne diw moo ëpp doole ndiw diw moo mun diw diw mën na daan diw ñu ne da dañ ko corrompre wala da far mën mënu ma faa moo Modou Lo dama ko seetaan Khadim Fall production seetaan ko parcelle boobu oto amu fi Modou Lo oto bi mu njëkk am fii la ma fekk Prado benn Prado bu waax mu daan sol benn polo bu beige daan ñëw ci koñ bii di seet Zarko Serigne Mamour Seck di ma Serigne mu teel donc xam naa li xew Modou loo Siteu mii daje na ak Lac de Guiers ma ne bu Siteu defee quatre appuis sax moo daan Quench ba mu dégg Alioune Seye dama ne ko boo moytuwul Quench soo moytuwul Alioune Seye da lay dóor nga daanu du dama xam lu kenn xamul mais damay analyser la personne à sa juste valeur Tapha Tine Balla Gaye bi ñu signé dama ne Tapha Tine mentalité bi ma gis Balla Gaye yor ko ca kaw soo ko rectifié wul da lay daan. bool bool ñaata vidéo TikTok nga gis ñu xëy attaqué ma man leen ba dimanche ca ngoon Sa Thiès ba muy dajeeg Eumeu Sène dama ko ne comportement bii nga yor ci këram euh, euh, Eumeu Sène soo ko moytuwul daan la saay saay keroog moo koy posé question pourtant dafa mer moom Sa Thiès dama ko ne boo doxul ci orgueil yu ba génn jikko ji si il à l'aise da lay daan mu ne ma yéen ay saytaane ngeen ay ëffal ngeen bëgg dama xam ay qualité Modou Lo dama ni bunt bu bunt bu ama Sène mi dàq bëri ci àddina fëgg ñaari yoon kenn ubbilu ko bu mujj bi dafa am defet bi gën a métti ci mooy mu loolu ko dóor mu daanu Ama Baldé mi ëpp sañ-sañ ci làmb ji ñëw Modou fere na ko dóor ko vingt quatre coups de canon dara xewul may sa xarit bi ci njob bi surtout El Hadj ni commande bi boo ñang de mbër mi ëpp pexe ci làmb ji la tacticien le technicien ñëw Modou nax ko fii ci arène bii waaw bunt boobu jàpp ngeen ni Siteu mën na koo ubbee damay laaj yàlla mën na lu ne yàlla mën na lu ne làmb mën na lu ne mais Ousama Ben Laden mii ma gis takbiir mii ma gis barki Demba Ndiaye bu yeboo ñu ne buur na koo faade booy yi fekk ñu ngi làmb mënaguñ koo daal mën a laaj sàppali maa wax ne te booy dañu làmb ci ci ci état état forme yi nga xamante ne gis nañu ko. ci suuf loo gën a pare. moo gën a pare si fuuf ci li nga gis solo laajal ci wàllu sport xam nga yow doo expert. xool nga ñaari dagg yi ku gën a pare. non yow laa laaj. non dama la delloo question bi. il faut ngeen nangoo am liberté la liberté de penser la liberté de s'exprimer muy ci politiciens yi muy ci muy ci làmb ji nañuy am le courage de s'exprimer buñ ci sóor kenn buñ ci sóor ku la koj buñ ci sóor ku lekk sa cere yaay buñ ci sopp sóor ku la tiktogal buñ ci sóor ku la laayval buñ ci sóor gars yi booy xoolal boo demee booy mafia bi dañ bu leen sóor yooyu liggéey leen en toute liberté Modou Lo le plus près. mais Mbour dama la dégg nga ne Balla Gaye fii la teg euh, empereur te bëgg na teg roi des arènes boole ko ñaar moo la ko xool kon tey diggante Modou Lo ak sita te Balla Gaye ban position la ciy taxaw soit est-ce que Balla Gaye Modou daane arrangé wu ko pour mu mën a jël jàkkaarloog Modou Lo wala Siteu mi nga xam ne doon na ko dëkk moom Balla daw mën nañ ko wax moo koy arrangé pour Siteu mën a daan. Modou Lo l'obligation de battre Siteu à cause de Balla Balla Gaye saa yu Modou Lo daane Balla Gaye day nekk dans l'obligation pour daal Modou Lo saa bu Balla Gaye daane day am obligé dal xool Siteu bu Siteu daanee Modou suba suba suba Balla Gaye day fera tout ba bëri ak moom maa ngi ñëw waay waay man maay mbay xibaar man maa raw Al Jazeera est-ce que Siteu dana daan Modou c'est là la question mais Balla Gaye 2 ci Modou loolu la gën a focus que ci Siteu moog Siteu dañoo benn règlement de compte dafa taxaw Amérique yàq ñoom njaay njaay lu mel ni xeme ne leen toog leen ngeen xaar ma arrêté caaka njaay daa leen fa fekk ndax boo nee rambax ma ne paccax xaw ma ñu ne paccax ma ne rambax Balla Gaye 2 mu ngi bàyyi xel Siteu mais Siteu man suma ma moom. su ma déggee roi des arènes du jël Balla Gaye 2 rëcc ci Modou di jël Balla Gaye 2 risque la di. mais ku muy jël kon. non <laughs> gaañaa ngi fi couronne bi da nga koy yaxanal ni Modou Lo def yor tamit sunguf Balla Gaye 2 mu ngi bàyyi xel Modou Lo waaw Balla Gaye Simba préparation bi lu xew. ñu lekk naa quatre heures du matin lu xew. daa heure bi da ko waroon fekk pare mu dem noppalu ji mais y' a quelque chose non mu ngeeg sax ay avance alburax mais y' a quelque chose combat bii lay xaar pourquoi pas une troisième confrontation entre Balla Gaye 2 ak Modou Lô waaw man de daf ma ne woon ca Gàmbi ñeenti mbir la ma waxoon ñett yi gis naa ko benn bee ci def des damay xaar diggante Siteu ak Modou Lô pour confirmer loolu lim naa ko limati ko jarul yegg daf ma ni woon Eumeu Sène mii di bëreeg Tapha Tine Tapha Tine da koy daal. Modou Lo dana hmm. daan Ama Baldé dina daan booy Niang man dinaa bëre ak Tapha Tine daan ko Modou Lo dina Modou Lo dinañu bërewaatee dinaa nekkaat roi des arènes hmm. wallaay balaa la waxoon barke Cheikh Modou Moussa euh, al Karim xaw ma xelam la xaw ma sëriñ la xaw ma ay jinne ko waaye dama ne man alaaji buur alaaji sàppali ñeent yam waxoon ñett gis naa ko maa ngi xaar benn bi la ñuy tëjee quoi. kan. yow Elmo doo wax perpétué. perpétué. pas foofu foofu da ngay comprendre. comme gis nañ li nga xamante ni nga demoon si plateau ba. Euh, ñu gis ñu gis ñu gis ni euh, ba toog wax benn kàddu. mu hmm. mel ni tey jii en tant que yow parce que ñëpp xam nañu si média ngay liggéey ñu gis ni ñu mel ni dañoo bëgg a supprimer si làmb en tant que ngay liggéey si média parce que comme ni ñuy falee président CNG hmm. yow muy liggéey si làmb est-ce que tamit yow mënoo woon représenté ko si média pour yi nga xamante ni média am na ko si làmb parce que gars yi fu ñu jëm ak ñun dañoo bëgg supprimer li nga xam xam ngeen moo waraf dani bukki bu dabee punkal ci na muy doxee la ñun média bi dañu gëmantuwul y a trop d'hypocrisie suñu biir de créé nañ fi ay association j'étais le président des deux associations benn bi Malick moo ma succédé benn bi finalement dafa tas ba ñu créé ci benn association ba boobu tasaat ba finalement yépp dee sénégalais moom mënut a supporter njiit pour ñoom bu la buur jiitoo rek daam lu mu la gënee déedéet waaye mbooloo xanaa ay melentaan sax wala ay xorondom bu ñu bu nekk ca kanam dama leen woon nañu ko xeex bi ñu organisé woo Elmo daan nga ñëw stade lépp a tegu woon ci raay yi gars yi dañu daan sóor mais maa ci gënoon a dee ndax làmb da nga daan ñëw pour reporter man mii duma mën a reporter mbay mii xam na li ma wax mais donc bu ñu demee ba créer ay clan clan ba créer yeneen ba lii tas nu may def parti di xool te yàq lu ma dara ci làmb man dematuma sax stade mais ci sunu division ci sunu ñàkk bëggante ci sunu ñàkk wegante ci la ñu devancer ba teg li ñu bëgg teg si on était unis comme un seul homme barki Cheikhul Khadim du demee nii peuple bi bi lamañ fu njëkk teg yëpp man mii maa daan toog ci table promoteur yi ñuy négocier Gallo mi fekk na fi bi Pape Thialis di tëgg Boy Niang Tapha Tine mais dañu taxaw on a ne ah, presque en ligne bi kat ku bëgg a bokk ci événement bi kat waa ji publicité mu ngi nii mais ñu signé des contrats balaa ma a joxe jotee mais dañ jox suñu euh, accréditation baa ñu suñu contenu kenn signalé wuñu mais nga dem ba un euh, quelque temps mel ni gars yi buur jiite leen day déranger ñu koy créé waat beneen groupe dem kër bës réunion fa ñu def nañu beneen groupe bu bees fal nañu Abou Ndour mi président euh, Dembélé vice président ba maanaam c'était pas élégant ma ne xew toog di xool tegal samay tànk loolu ñu créé woon demul léegi finalement ñoom ñëpp a perte elmo suñu bëggee xeex dara dañuy gëmante dañuy ànd ñun ñu nekk showbiz bi nii bi may jiite groupe bi Gallo était là ku sañ booy yi fi personne. mais dem na ba mu gi ma gis ni mbooloo mii ma jiite kat am na ci parti boo xam ne ils veulent un changement ma may leen l'opportunité mu jeex man mbir mii maa ngi ciy bëgg a yàgg duma ci xale président ligne bi fekk naa fi lu ne xam naa fi lu ne donc nag comme dañu bëgg mel ni ay bëy nañu mel ni ay bëy rek jasit bu rombee këf bu till rombee këf bu segg rombee këf te gis nga bu ñu booloowul bàyyil xel li ma la wax CNG bu bees bi xamoo lan la ñu indi ak promoteur yi mm-hmm. bu ñu amul taxawaay dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg promoteur bi tëgg làmbam mooy am support boppam jaay ko pay-per-view moom li ci des mu barkeeloo ko benn site dootul dugg stade man wax li te na ngeen ko bàyyi xel. mais mais day dee. est mais day dee man keroog je l'ai à Beuz. ñëpp seetaan nañ ko du ki yor connexion rek moo am droit seetaan lam am na maire bu am soixante amul téléphone booy bi am douze amul téléphone cette couche sociale là te bokkutuñ ci làmb mais promoteur bi n'a pas le choix parce que xaalisam la teg te bëgg na ko génn donc làmb dafa laaj ay réforme dafa laaj ay waxtaan mais gis nga ñun fekk ñu ngi ko jàppoot nii gëmante wuñu bëggante wuñu soppante wuñu barke alxuraan du ñu dem fenn am na ñoo xam ne nag ci milieu bii dem nañ ba noppi kenn mënu leen téye ci lépp lu ñuy bokk dañ koy def rek ngir waslu àq man ku ma fekk may bokk ci association bokk man xanaa la may waslu àq rek wax dëgg yàlla nag may àggalaw ah, ah, ah, man lépp sama temps ci internet def naa ko dematuma fenn mais mën naa écran ba ñu ñu jëflanteel bu ñu seenee buur na mu ngi ci kanam boo doon daw cent boo egsee di nga daw trente parce que damay taxaw ci défense booy dama leen ko wax dama leen di défendre ba xëy ñibbi Touba mais ñi ngay défendre rek bu fekkee bëgg ñu nga défendre leen wala xëy na jàpp nañ ni que boo leen dee défendre euh, nangam ak nangam ak nangam mais da ngay seetaan mais de sa tuuti benn site dootu dugg ci làmb mariage yi rek site yi mënatuñ fa dem ngénte yi naam ka conférence de presse yi dem boo ñëwee ñu naan sa carte presse nationale xeex naa ko xeexati ko mais bu fekkee ne que dañu nekk sur une débat de très bas étage diw du ma jiitee non diw bu kii ah, kii non kii non man kii mooy sama kii ah man kii mooy sama affaire bi doo affaire dañuy bokk benn objectif mën ko xeex gëm ko lan mooy ndeyu ngay ubbi sa boutique ma ñëw ñu ñëw nekk vingt organes ñëw filme la publicité la buñ pare nga jox ñu ko ne dix mille loolu mooy lan mais loolu yanul maana nga def sa dîner de gala jox ma ay publicité ma dugal ko jox ma say teaser ma dugal ko dem filmer ji ay répétition Viviane wala Wally Seck wala naa wala Pape Diouf wala nangam nangam jox nga ma ay teaser jox ma ay publicité ma jël si la ay répétition pour benn accréditation. mais est-ce que buur tamit loolu nekkul ni euh, yenn patron yi ñoo ñoo ñoo doyluwul parce que am na ci événement yoo xamante ni dañuy woo buur ne ko euh, lijjantil ma vingt presse waa ji génne budget wu cinq millions teg ci table bi nga woo Abdou Saliou ne ko wala galo ne ko waa ji ne dafa bëgg nga dugal ko publicité vingt mille la joxe ci ku génne budget de cinq mais ñeneen ñi bañ man ku ma ko def damay bañ man waxuma man man buur man waagaan rek am na looy proposé su jaaduwul danaan demuñu man loolu laa gëm dama koy ay duudu. dix mille francs yi ngay forforlu ci gars yi bàyyi wuñu fi xeeb leen dix mille yi te ba ko fi suba ngeen mën a lekk cent mille parce que damay dem inauguration boutique diw parce que artiste nangam daf fay ñëw booy sans nous la presse en ligne benn artiste du exister benn politicien du exister benn mbërum làmb du exister sans nous laa wax am na artiste yu fi duggoon suñu suñu caaya dañu cookeek ñoom ba lëz tey ils ont changé de fusil d'épaule ñun ñooy wax ci ñoom ñooy wax ci jaaykat saabu yi ñooy wax ci kat yi ñooy wax ci dof yi ñooy wax ci kaa yi ku bëgg a saaga sa morom sax ñun ñooy wax ci yow pour laal avec ça ñun ñun bëgg nañu avancer nguur gu fi jaar boo ñëwee boo jà da ngay jàkkaar ñun ba xam ne mënoo ñun dara nga bàyyi te loolu li ñu ko yóbbee mooy ñàkk déggoo ak ñàkk booloo fekk mu ngi suñu biir on ira nulle part man ñoom gàllo ñuy showbiz ba lañ ñu fekk Mbaye Diop mi xam na li may wax boobu ñu nag ay ñoom Madoune Diouf Tage ay ñoom Chon ay ñoom Bouche Dramé ñoo fi nekkoon amul benn waykat bu am fito ñoo nañu kaa ñëw leen ngeen fil ngeen filmé ñu sama ouverture boutique sañoo ko sax buñ mësaana ñëw ci bés da ngay xam ne que ñii ay délinquant lañu doo ñu def loolu ñàkk fayda doo ñu ko waxloo booy ceemee keroog bi ñu euh, kii Cheikh invité Medina El Hadj Keita suñu benn booy caméraman bi mu taxawee jëmi bi buux ko dama ni booy lem leen caméra yi Cheikh Bak El Hadj Keita jooju mujj saraxu ngir jëmm yàlla ay waay waay parce que mais sans nous l'événement ne passera pas dama leen ni bu amaatee booy dem. Lamb galo dañ daan teew ñu bëgg fa bund xatal benn booy ma ne booy lem leen trépied yi booy lem lépp promoteur baa ñuy dabi ci biti mais est-ce que ce que booloo boobu ba tey am nañ ko. amatuñ ko. d'accord am na solo. ñu ngi lay jaajëfal di la kontaanee bu baax a baax. ñoo gën a kii ku ci ndawtal nag mu ko jox incha <laughs>